waaye sëriñ bi mooy yitteem te xam nga yit ne sëriñ bi mooy seen yitte yitte bi mooy yitte woo yàlla kon nag lii ngeen aajo woo ngir gis ko ngir bëgg koo gis yëpp nee na lépp sëriñ Tuubaa rek moo tax waaye na ngeen xam ne mu ngi fii fas yéene fi nekkal sëñ bi rek li ma fiy sa li ma fiy sàkko bépp xol boo xam ne sëriñ Tuubaa nga ci biir ma ngi la cay fasaale rawatina nag taalibe yi taalibi rawatina taalibi dëkkandoo yi. rawante na nag taalibi yi dëkkandoo yi. rawatina yéen ñii. rawante na nag yéen ñii. ngeen xam ne. mel na ne waxtu wu génnee. mel na ne waxtu wu génnee. yéen a bokk lu ngeen di wut. yéen a bokk lu ngeen bëgg. yéen a bokk fu ngeen jëm. loolu rek la leen xoolee. nee na mi ngi sant borom bu baax. mi leen mi leen boole sëriñ bi. di sant sëriñ bu baax. mi ñu boole yéen. mi ngi leen di sant di leen gërëm baax di leen ñaanal tawfeex ji ngeen am mu yittewoo Serigne Touba mi ngi ñaan ci baaxu Serigne Touba seen mbir yëpp suñ borom suñ borom kàttandu leen ci ak tawfeex Serigne Touba seen lépp yomb seen lépp diwen seen jën mi yëpp defaru yàlla dafa leen barke ci seen yëngutu yëpp ba ci seen aju yëpp suñ borom fajal leen ko dafa leen ci barke na seen xel dal bu baax yàlla kenn ku nekk ci ñun suñ borom moo yor sa wërsëg moo yor sa lépp te foo nekk mu fekk la fa ak moom li ci am solo na jublu gu wér rek nañ jublu sëriñ bi rek te fas yéene ko nekkal suñ kéem kattan li war ci ñun yëpp suñu borom mi nu bind andi nu fi moo nu ko bindaale moo nu ko yoral kenn ku ci ne fa nga nekk loo amee cib cër lu ci aju ci àdduna jërul nga di cee sonn dëgg la nit mënta toog ci loxoy neen waaye kenn ku ci kenn ku nekk ci ñun nga tàllal sa loxo suñ borom nga tàllal loxo suñu borom rek. di yëngatu sabablu di yëngatu di sabablu. te sax xaw xam ne si jaamu yàlla dong mu fi indi. te xam ne jaamu yàlla rek moo ñu fi indi. dara andiwul dara andiwul fi. sëriñ bi bi fi ñëwee. sëriñ bi bi mu fi ñëwee. bi ñu ko gisee bi ñu ko gisee. ak bi ñu ko noppee gis. boolewul dara ak boromam. lu dul yonent bi rek. boolewu ko ak moom. jaamu boromam liggéeyal yonent bi loolu rek la fi nekk woon loolu nag moo fi bàyyi nag mooy sunu ndono ci moom lu ñu néew néew doole nanu xam loolu nekk jéem caa nekk suñu kéem kattan te jéem caa nekk suñu kéem kattan. buñ ci jéemee nekk suñu kéem kattan. warte fi rëy na lool. mooy jaamu yàlla. te jaamu yàlla yombul. te buñ ci nekk suñu kéem kattan. suñu borom mi moom lépp. moo nu koy nangul. kattanu na ci la ca la ca la ca des. la ñu waroon te mënuñu ko. mu nangul ñu lépp. muy noflaayu àdduna. di taraange àllaaxira. muy loo xam ne. muy loo xam ne. bu loolu dëggoo ci ñun. bu loolu dëggoo ci ñun. danañ yëg suñu bopp. danañ yëg suñu bopp. texe rek lay doon. texe rek lay doon. ndax ku adduna ku adduna soxalul. ndax ku adduna soxalul. taxu laa jóg taxu laa jóg. safu nga nekk ci sa nga nekk ci sa borom. du la wàññi dara du la du la wàññi dara. la nga waroon la nga doon bëgg la nga te la nga ba doon bëgg ci àdduna. lépp lu a doon. lépp lu mu mën a doon. la ko la sa cër. lu mu mën a doon la cay sa cër. ko foo nekk. foo nekk. dana fekk suñu borom dana la fekk ak moom. te du la yàqal du la dara ci ëllëg ji. te du la yàqal dara ci ëllëg ji. moom àdduna ci gàttal. àdduna daal moom ci gàttal. moom. boo ko wanee ginnaaw boo ko wanee ginnaaw. te jëm ci suñu borom. suñu borom li li la nga ci doon waa li la ci waa adduna waa adduna di wut lépp waa adduna di wut lépp. seen adduna ci seen adduna. yéen ngeen ngeen waroon ko wut. yéen ngeen ko wut. lépp suñu borom moo leen ko amee lépp suñu moo leen ko amee. li ci am solo mooy ngeen yittewoo yàlla rek. buñ ko defee rek buñ ko defee rek. lañ bëgg lépp suñu adduna. lañ bëgg yëpp la ci suñu wàll la ci wàll. fu mu mën a nekk danañu fekk. te te du ñu yàqal dara. du ñu yàqal dara. ci ci ci suñu dundu biir. ci suñu dundu biir. dundu biir gi. dundu biir gi. du dara lu dul. Eh, noflaayu adduna. noflaayu adduna. adduna fitnay kese la. adduna fitnay kese la. te boo jëmee ci yàlla. te boo jëmee ci yàlla. da la koy da la koy woyafalal. da la koy woyafalal. mu diis diis. lu mu diis diis. ak lu mu métti métti ak lu mu naqari naqari am lu mu lëj lëj lëj ak lu fitna fitna yi bari bari lu coono yi bari bari loolu yëpp suñu borom dala fay féete noppal la ca nga nekk ci àdduna nekkal jàmm doo yëg dara muy tax biir loolu moom tax biir la boo xam ne fii lay tàmbalee bàjjana loolu rek la demee jublu yàlla mooy jublu sëriñ bi rek mooy jublu sëriñ bi rek. jublu sëriñ bi rek jublu sëriñ bi nag. suñu suñu njëriñu rek suñu njëriñu biir la. suñu njëriñul biir la. ak ak suñu njëriñul bitti. di suñu njëriñul adduna di suñu njëriñul alaaxira nan góor bu baax a baax. mel na ne lu jafe la. fii ñu toll ndax fi nit ñi fii ñu toll. fii ñu toll ñun ñii. fii ñu toll ñun ñii. mel na ne. talatuñu yàlla. talatuñu yàlla. talatuñu alaaxira. loolu ñu ko teg. loolu ñu ko teg fi ñu àdduna te ku ko nag fi mu ne àdduna. song la fa nga nekk. song la fa nga nekk. la ca loola. nargan la ca loola. nga fàtte yàlla. nga fàtte yàlla. fàtte yàlla. fàtte suñu adduna kat. lépp dañu ko yombal. lépp dañu ko yombal. dañu koy defal. dañu koy defal. kenn ku ne. kenn ku ne. fa nga nekk mu fekk la fa. loolu loolu loolu noonu rek la adduna. non dundu adduna rek la. dundu adduna noonu rek la demee. dara andiwuñu fi. dara andiwuñu fi. dundu jaamu yàlla. dundu jaamu yàlla rek. suñu borom dañu fi indi rek dina jaamu yàlla. suñu borom dañu fi indi rek ngir ñu di ko jaamu. bu bu buñ ca góorgóorloo rek. buñ ca góorgóorloo rek. mooy li ma waxoon rek. mooy li ma waxoon rek. daal di noppalu adduna. daal di noppalu adduna. noppalu alaaxira dañ jëm. noppalu alaaxira dañ jëm. dem ci àjjana. dem ci àjjana. di fa benn. di fa benn. dutuñu fa jóg mukk. dutuñu fa jóg mukk. loolu loo ko jënd jar na. loolu loo ko jënd jar na. nañ góorgóorlu bu baax. nañ góorgóorlu bu baax rek. maa ngi leen di sant bu baax. nee na mi ngi leen sant bu baax. nee na ngeen xam li mu bëggal boppam. moom la leen bëggal. li mu yéene boppam moom la leen yéene. na ngeen góorgóorlu bu baax a baax. nañ góorgóorlu bu baax a baax. lu ngeen gën a jublu yàlla rek. lu ngeen gën a jublu yàlla rek. adduna gën a woyof ci yéen. adduna gën a woyof ci ñun. ngeen gën a mën a dem. ngeen gën a mën a dem. gën di defaru di gën di di di mucc di gën di mucc di gën di texe di gën di texe loolu rek lañ leen di loolu rek la ñu indi kon na ngeen xam ko xamee noonu kon nañ ko xamee noonu rek nañ góorgóorlu bu baax jërëgeen jëf nee na tey jii daa bëgg incha allah dem Porokhane moo dem ca liggéey ba liggéey sëñ bi rek benn liggéey bi rek la li muy def fii rek li muy def fii rek moom lay def fële moom lay def fële ay jamono rek ay jamono rek dellusiwaat fi incha allah nekkuma ci dara nekkut ci dara bëggut dara soxlawut dara sëriñ bi rek la sëriñ bi rek la soxla li sëriñ bi bëgg rek moom rek la bëgg moom la leen bëggal li mu li mu li nu li nu sëñ bi nekk loo itam. li nu sëñ bi nekk loo itam. loolu rek la nekk. loolu rek la nekk moom rek la leen moom rek la leen yéene. nañ góorgóorlu ci loolu rek. ma leen di wax yëpp nag. li mu leen wax di yëpp nag. du tee dem ca marché ba. du tee dem ca marché ba. du tee dem ca tool ya. du tee dem ca tool ya. du tee dem tukki. du tee dem tukki. waaye jotewul ak yooyu loolu dara. jotewul ak yooyu dara. waaye waaye loolu bu mu la bu mu la yitteel. waaye loolu nag bu mu la yitteel. nga xam ne yëngatu mënta ñàkk. na nga xam ne yëngatu mënta ñàkk rek. la nga cey wut. la nga cey wut yàlla la ko amee. yàlla la ko amee te foo nekk mu fekk la. nga nekk ca. nga nekk ca. ba def sa xel lépp nag. ba def sa xel lépp nag. sa borom ci sa borom. waaw lu lu la la la la la war sa diggante sa borom. la la war sa diggante sa borom rek. nga di ko jéem a xel wax waxtu nga di ko jéem a xam waxtu nekk di ko jéem a jëf di ko jéem a jëfe sax ci loolu sax ci loolu dak buñ ko defee rek buñ ko defee rek daan am lu ñu doyee jàpp sëkk dana am lu ñu doyee jàpp sëkk waaw dajee suñu borom gàttan na la ca des suñu borom gàttan nañuy def fay nu ngën ji fay fay nu ngën gi fay noppal nu tey ëllëg noppal nu tey ëllëg yóbbu nu àjjana yóbbu nu àjjana loolu rek la ñu indi waaye leneen lu loolu rek waaye leneen lu loolu rek safaan rek la yal nañ ci yàlla musal na ñëpp talal nag kàddu yi sëriñ bi léegi mooy waxtaanee ak mbokk taalibe yi ak si Cheikh Moussa Cissé yëpp alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ Aliou mi moo àndoon njaboot gi ñam tàndoon ñu ànd moom ñoo fi ñëw gi moom ci ndigal sëñ Keeba. waxtaanoon. waxtaanoon. ñu amoon yéene mu ñëw fi teew bi waxtaan ak ñoom. mu mayoon leen ko. waxoon na leen na ko bëggee. waxoon na leen na ko bëggee. ñu mayee ko ko noonu. ñu ba ci dëkk bi. mu ñëw ba ci dëkk bi. ñoom ñii teew. ñoom mu wax ñoom. wax ji nag. weesu wut. wan mu ngi sant suñu borom. lii rek moo ko tax a jóg. diine diine. diine rek moo ko tax a jóg. islam rek moo ko tax a jóg. fekk na ko fi itam. kon nag li ci mooy tolluwaay bi. tolluwaay bi tolluwaay bi. tolluwaay bi moo di. tolluwaay bi moo di. lislaam ci boppam. lislaam ci boppam. bari nañ ci ay lu ci lu ci métti. bari nañ ci luñ ci métti. bari nañ ci ay ay yu bëree bëri bëri bëri yoo. bari na ci yu bëree bëri yoo xam ne. yoo xam ne bokku ci. bokku ci wala gën ci. gënal gën gënu ci gënalu ko. tolluwaay boobu moo bi ci ci adduna bépp la. toll tolluwaay bi ci adduna bi yëpp la. tàmbale woon naa wax ne. tàmbale woon naa wax ne. bala noo tal euh, yoon. bala ñoo tal yoon nañuy tal lislaam ba noppi nañ tal lislaam ba noppi lislaam bi aajo la jóg lislaam bi aajo la jóg kon nañ ci jóg kon nañ ci jóg weesuwul dara lu dul weesuwul dara lu dul gën a fonk alxuraan gën a fonk alxuraan gën a fonk sunu yonent bi gën a fonk sunu yonent bi loolu nag loolu nag jàng koy maye moo moo moo moo koy moo koy moo ci tax a jëriñu jàng moo ci a jëriñu li ngeen li sëriñ bi mujjoon eh, yim xalaat yim mujj yim waroon def lépp da ngeen xalaati sëriñ bi ñu mujjoon xalaat yëpp ab jàngukaay moo ci mujjoon ab jàngukaay moo ci mujjoon yàlla dajale noog moom yàlla yàlla dajale noog moom kon noonu ma leen wax kon loolu mu leen wax ne ne alxuraan alxuraan ak sunu alxuraan mooy tax a xam yàlla. alxuraan mooy tax a mooy tax a xam yonent bi. sunna mooy tax a xam yonent bi. mooy tax xam ni ñuy jaamoo yàlla. mooy tax a xam ni ñuy jaamoo yàlla. kon nag te a koy maye. xam-xam rek moo koy maye. budul xam-xam. lu dul xam-xam. bu dul xam bu dul xam-xam. bu dul xam ñuy dimbali ba xam ni ñuy jaamoo suñu ñuy topp yonent bi. ak na ñuy toppee yonent bi. ak na ñuy na na na ñuy ànd ak sëriñ bi. ak na ñuy ànd ak sëriñ bi. loolu xam-xam moo koy maye. loolu xam-xam moo koy maye. am nañ tawfeex ji fa tabarakallah. am nañ xam-xam am nañ tawfeex fa tabarakallah. ay jullit lañu. ay jullit lañu. ñu topp yonent bi lañu. ñuy topp yonent bi lañu. ñu bëgg sëriñ bi lañu. ñu bëgg sëriñ bi waa lañu. ñu doyloo sëriñ bi lañu. ñu doy ñu doyloo sëriñ bi lañu. waaye nag loolu. waaye loolu. day tax ñu mën koo jëriñoo. day tax ñu mën koo jëriñoo. xam-xam rek moo xam-xam rek moo tax ñu mën koo jëriñoo. dama bëgg. mu daa bëgg. ne sëriñ bi daa bëgg dëgg mu ngi ñaan dañu ñaan ñun ñëpp day ñaan ñun ñëpp lislaam bi yëpp lislaam bi yëpp rawatina ñi nga xam ne rawatina ñi nga xam ne ñoo aju sëriñ Tuubaa ñoo aju sëriñ Tuubaa na ñëpp jóg ñëpp jóg jublu ci xam-xam jublu ci xam-xam gën a fonk a a a xam-xam xam mooy tax ñu xam alxuraan mooy mooy tax ñu xam sunna si yonent mooy tax ñu xam sunna si yonent mooy tax ñu xam sëriñ bi mooy tax ñu xam sëriñ bi kon loolu rek fi nekk kon loolu rek moo nekk maa maa ngi maa ngi ñaan yéen kilifa yi nga xam ne yéen a ci dëkk bi sëriñ bi nee na mu ngi ñaan yéen kilifa yi nga xam ne yéen a nekk ci dëkk bi ngeen jógal seen bopp ngeen jógal seen bopp fonk daara yi fonk daara yi fonk jàngu alxuraan fonk jàngu alxuraan yéen a ngi ci woon ndax yéen a ngi ci woon waaye ngeen jógaat ci xam ne dafa ajona jóg ngeen waaye ngeen jógaat ci xam ne ajona jóg fonk nag jàng xam-xam fonk nag jàng xam-xam xam ba bañ ba xam seen diine xam ba xam seen diine xam yëmul fenn xam-xam yëmul fenn xam sa diine waaye xam sa diine doy na doy na nga dem jaamu ji yàlla nga dem jaamu ji yàlla loolu mënta ñàkk waaye loolu mënta ñàkk yéen ñi nga xam ne yéen yor yéen yéen masoole bi yéen la yàlla yéen yéen bi yéen ñi nga xam ne yéen yàlla yéen yàlla yéen yéen bi yéen bi mbooloo mi bu ngeen jógee bu ngeen jógee njaboot gi dinañ jóg ànd ak yéen njaboot gi dinañ jóg ànd ak yéen ngeen jógaat ci alxuraan na ngeen jógaat na ngeen jógaat ci alxuraan fonk daara yi fonk daara yi jublu jàng alxuraan bu wér jublu jàng alxuraan bu wér kam kàttan seen kam kàttan moo xam moo xam mokkal ko. moo xam mokkal ko. ma ma ma def ko ni ko ni ko mag ñi daan def. def ko ni ko mag ñi daan defee. mokkal ko bind ko. mokkal ko bind ko. door door jàngi xam-xam nag. door a jàngi xam-xam nag. xam-xam boobu mooy tax nga xam li ci alxuraan. xam-xam boobu mooy tax nga xam li ci alxuraan. mooy taxit nga xam sunna si yonent bi. mooy taxit nga xam sunna si yonent bi. kon nag li may ñaan. kon nag sëriñ bi nee li muy ñaan. di leen laabire. di leen laabire. ndigal li yàgg na fi lool. ndigal ndigal li yàgg na fi lool. junni at. junni at. ak ñeenti téeméer. ak ñeenti téeméer. ak ñeent fukk. ak ñeent fukk tey jii. tey jii la la la gën a la islam gën a soxla ko ko wuyu. tey jii la la la lislaam gën a soxla ko ko wuyu mbooloo mu bari mbooloo mu bari tegu nañ ci siraatal mustaqim tegu nañ ci siraatal mustaqim mooy yoon wu mag wi mooy yoon wu mag wi waaye lépp waaye lépp taluñu taluñu taluñu taluñu yàlla waaye lépp taluñu yàlla taluñu alxuraan talu taluñu alxuraan taluñu alaxira taluñu alaxira taluñu yonente bi taluñu yonente bi adduna fàbbi leen adduna fàbbi na leen kan moo nekk te loolu alxuraan moo nekk li ñu ciy génne nag li ñu ciy génne nag mooy jublu ci jàng mooy jublu ci jàng jublu ci jàng xam xam xam ngir yàlla jublu ci xam ngir yàlla ba mën a xam alxuraan ba mën a xam alxuraan ba mën a xam sunu yonente bi xam sunna si yonent bi xam sëriñ bi mën sëriñ bi li ko tax a jóg sëriñ bi li ko tax a jóg sëriñ bi sëriñ bi biñ fi ko gisee ba niñ ko noppee gisee nekkul ci dara lu boromam nekkul ba mu jógee ba mu jógee bi muy bi muy feeñ bi muy feeñ. bi muy feeñ. xam na xam xam nag mayam. xam nag mayam. waaye da koo teg fee. waaye da koo teg fee. dem dali baasin. dem ba dem dali baasin. jàng ba xam jàng li mu war a jàng lépp. jàng ba jàng li mu war a jàng lépp. door a wëlbatiku. door a wëlbatiku. woo mbooloo mi. woo mbooloo mi. war a tegu ci siraatal mustaqima ñu war a tegu ci siraatal mustaqima loolu mooy yoon wu mag bi loolu mooy yoon wu mag bi siraatal mustaqima mooy yoon wu jub bi rek loolu rek la fi loolu rek la sëriñ bi indi yoon yi nga xam ne ñoo soqi ci siraatal mustaqima bala moo jag bala moo jag yoon wu mag bi dafa jag yoon wu mag bi dafa jag nañ góorgóorlu jóg nañu jóg fas yéene jóg te jóg te yàlla tax fas yéene xam fonk alxuraan fas yéene fonk gën a fonk alxuraan gën a gën a fonk njàngum xam-xam gën a fonk bu njàngum alxuraan ak xam-xam jàng ba xam sunu diine jàng ba xam sunu diine loolu mooy tax ñu xam li ci alxuraan loolu mooy tax ñu xam li ci alxuraan mooy xam nanuy mooy mooy xam sunu yonent bi mooy tax ñu xam sunu yonent bi jàng mooy tax ñu xam ko jàng mooy tax ñu xam ko loolu mooy tax ñu xam ñu xam nanuy jaamoo yàlla loolu mooy tax ñu xam nu ñuy jaamoo yàlla ba mu amee itam loolu bi am ba mu amee itam daf ñoo jaamuloo daf ñoo jaamuloo andi nu fi andi nu fi ñu war koo jaamu ñu war koo jaamu kon nag la ca des kon nag la ca des ñu xam nañ koy jaamu ñu xam nañ koy jaamoo loolu aw yoon la loolu aw yoon la da ngay jëfe alxuraan mooy jëfe alxuraan jëfe sunu yonent bi jëfe sunu yonent bi tegu ci siraatal mustaqiim. tegu ci siraatal mustaqiim. loolu loolu loolu mooy mbir mi. loolu mooy mbir mi. moo fi indi moo fi bàyyi. moo fi indi moo fi bàyyi. Ah, yoon yi moom yoon moom. yitte rek ko moo yitte rek moom moo ko ba ba ba bëgg yokku yokku bëgg yokk seen yitte rek. bëgg yokk sunu yitte rek. moo am yitteel yoon yi. rek lañ ci. jublu. ak wéeral ak wéeral. dolli dolli. yitte yi. loolu rek moo indi loolu rek moo indi yoon kon bala noo tal yoon yi waaye balaa ñoo tal yoon yi nañu tal siraatal mustaqim ba tal siraatal mustaqim ba noppi buñ ca jógee buñ ca jógee ah, sàmm yoon day yomb lool sàmm yoon day yomb lool la ca seen borom jublu woon la ca suñ la ca woon dañuy yomb lool dañuy yomb lool ñu mën koo jëfe ñu mën koo jëfe dolli ko siraatal ko siraatal mustaqim moo loolu moo moo moo mooy mooy mooy mooy suñu mucc. mu loolu mooy mooy suñu mujj. loolu loolu moo tax ñu mën a mucc mën a mucc tey. loolu moo tax ñu mën a mucc tey. mën a mucc moo mën a mucc boo ëllëgee. loolu rek la. loolu rek la. wax wax ji weesuwul loolu rek. lo wax ji weesuwul loolu rek. nañ góorgóorlu alxuraan. nañ góorgóorlu ci fonkaat alxuraan. jàng xam. fo fo góorgóorlu ci fonkaat jàng xam-xam. loolu moo ñuy tax a xam. loolu mooy tax ñu xam suñu diine. ba mën koo jëfee bu baax ba mën koo jëfee bu baax. mën a tegu ci saatam sax xiima loolu rek la na alhamdulilahi rabbil alamina kilifa yi kilifa yi yi fi jaar yi fi jaar yëpp kilifa yi fi jaar yëpp yàlla tax leen jóg te yàlla tax loo ne jóg amel nañ leen leen ak cant waaye nag waaye nag la ca des waaye la ca des muy tegu siraatal mustaqim muy tegu kenn ku ne loolu kenn ku nekk dafa war ci te mooy tax te mooy tax nga gën a a xam yàlla nga xam sunu si yonent bi a xam na nga xam nga a dolli yitte joo ci mën a dolli ak taalu loolu moom moom lañ tuddee ak taalibe yi dolli ci siraatal mustaqiim yitte ji dolli ci dollee ko ci moo di ak taalibe moo di ak taalibe taalibe li mu doon taalibe li doon mooy bëgg lu baax mooy bëgg lu baax te bañ lu bon bañ lu bon di def lu baax di def lu baax di daw lu bon di daw lu bon lépp yàlla tax nga lépp yàlla tax nga ko def kuy doxee noonu kuy doxee noonu tegu ci siraatal mustaqiim tegu ci siraatal mustaqiim yoonu yoonu yàlla ngoog dara sëriñ bi moom. sëriñ bi moom. noonu ma leen ko waxee rek. noonu mu leen ko waxee rek. talu fi dara. talu fi dara. du dul loolu. di jaamu boromam. di jaamu boromam. liggéeyal yonent bi. di liggéeyal yonent bi. loolu rek ci biñ ko gisee bañ ko noppee gisee. biñ ko gisee ba niñ ko noppee gisee. ci loolu rek ci loolu rek la nekkoon. loolu nag loolu nag. moo suñ ndono ci moom. mooy suñ ndono ci moom. nañ fonk ndono loolu bu baax nañ fonk ndono loolu bu baax. mooy fonk alxuraan. mooy fonk alxuraan. fonk jàng suñu yonent bi. fo fonk suñu yonent bi. xam jàngi jàngi bu wér. jàng bu wér. xam xam xam xam alxuraan. xam alxuraan. xam suñu yonent bi. xam suñu sunna si yonent bi di ko jëfe loolu mooy siraatal mustaqima door a doon buñ ci jógee buñ ci jógee door a doon ay taalibe door a doon nag ay taalibe lu ñuy def lu ñuy def bu ñuy topp ndigal bu ñuy topp ndigal te yàlla tax te yàlla daw tere bu ñuy daw tere yàlla tax na loolu nag mooy mooy mooy siraatal loolu nag mooy siraatal mustaqima kon lañ ca dolli lañ dolli yitte ju rëy mooy yitte ju rëy wan adduna wan gannaaw adduna du tax du tax nga ñàkk sa a nekk ci li nga war a nekk nga war a nekk ci nga mën a nekk ci li nga war a nekk dakk ci jaamu yàlla mooy sax dakk ci jaamu yàlla noonu rek la demee noonu rek la demee loolu moo fi indi loolu moo ko fi indi sant sëñ Aliou bu baax mu ngi mu ngi sant sëñ Aliou ak njaboot gi mag ñi mu àndaloon ak mag ñi mu àndaloon te yàlla rek tax leen a ba ba ma amee ca tawfeex. ba moom moom Serigne Mountakha mii wax ak sëriñ bi. xam nañ leen di toppee. xam xam nañu jaamu yàlla ak nañu topp yonent bi xam nañu doyloo sëriñ bi ak nañ koy liggéeyee loolu dong nga tax mu sox ko dëgg la bëgg gi mu ngi fi dëgg la bëgg gi mu ngi fi doyloo gaa ngi fi doyloo gaa ngi fi kër gaa ngi fi ñu man ñu ngi koy def kër kër gaa ngi fi niñ man ñu ngi koy def waaye nag waaye nag waaye nag xam nañ koy defee nag waaye xam nañ koy defee na ko suñ borom bëggee na ko yonent bi indee na ko yonent bi indee sëriñ bi sàmmee na ko sëriñ bi sàmmee loolu daf cee mënta ñàkk waaye loolu loolu daf cee mënta ñàkk ci góorgóorlu bu baax kon nañ ci góorgóorlu bu baax yéen laa koy wax nag moo ko waxee ak yéen wax naa ko njaboot bi ñëpp. yéen ñii ne am na yeneen kilifa bu ko waxee yéen wax na ko njaboot gépp. lii moom lii moom. li mu leen digal mooy ndigal li. du du du du du ndigal ci man. nee na lii moom du ndigal ci moom. ndigal li fi laa ko fekk. ndigal li fi la ko fekk. kon du ndigal ci man. du ndigal ci moom. li ci li mu doon. li mu doon laabire leen. mooy laabire leen. laabire leen. laabire leen. ci ci ni yàlla bëgg. ci ni yàlla bëgg. ci ni yàlla bëgg. ci ni ni yàlla bëgg. ni yonent bi bëgg. ni yonent bi bëgg. ni sëriñ bi bëgg. ni sëriñ bi bëgg. loolu loolu moo ko fi indi. loolu rek moo ko fi indi. laabire leen ci loola laabire leen ci loolu ngeen xam yoon wa dëgg ngeen dëgg dëgg xam loolu xam nga xam noonu niñ koy jëriñoo la demee noonu rek la demee fokk ñu jàng kon fokk ñu jàng ba xam alxuraan ba xam alxuraan xam sunu yonent bi xam sunu yonent bi xam sëriñ bi mooy tax nu xam mooy tax nu xam nañu war a jaamoo nañu war a jaamoo yàlla buñ ko xamut buñ ko xamut dañuy féetal rek dañuy féetal rek te loolu loolu loolu nekk nekk te loolu amul ñu benn njëriñ waaye nañ góorgóorlu ci ci li ñu ci li fi indi ñu jaamu yàlla rek ñu jaamu yàlla rek loolu rek moo ñu fi indi waaye nag ñu xam ne waaye il faut que ko xamul buñ ko xamul neen rek lay doon neen rek lay doon loolu rek moo ko fi indi. sant bu baax nee na mu ngi sant bu baax. di yeesal wëllëre bi. di yeesal wëllëre bi. wala li ñu bokk suñu diggante sëriñ bi wala li sëriñ bi koy yeesal mu ngi ko sàmmonte te di ko te di te di ko fas ko ànd ak di ñaan ci baaxum sëriñ Touba suñu borom gàttanu suñu borom gàttanu ak tawfeex sëriñ ak tawfeex sëriñ bi lii nga xam ne mooy suñu warteef lii yomb nu yomb nu yombal ko njaboot yëpp yombal ko njaboot yëpp nangul leen ko nangul leen ko te saxal leen ci te saxal leen waaw yëkkati ma nag ma defee ni yëkkati ma itam kii dañ bëgg a yëkkati kii